kii maa woye di ba toog suñu avec baa ngi nii ah woye di daa de waaye wax ko xam naa ne mooy génn kër gi rek benn yoon. laay yaatal avec yow yaatal avec waaye man tabax si gii ñëw ooma oh, lu ma sol war a a sol tamit si lendemain bi sam papa du yolos yolosi moom yolos yolosi rek kay métier ah Awa moom man na war a def koñ bi nga xamante ni foo romb xar yaa ngi daaxante sa ko ñàkk jom la yeewu kër gi xar. yaay ñu romb ñi ñuy ñaawal. yaay xar garaaw xar garaaw xar garaaw na nit ñi solo xar garaaw koñ bi foo taxaw dinañ la may lara xar garaaw. yow Awa Ndiaye wér nga yow sa morom yi bëgg nga ñu naan la Awa Ndiaye seen waa kër amuñu xar ñu ñoo leen sarax yàpp. loolu war naa rek man de na sama morom bi solo ma solu benn xam ne amuñu xar waaye am nañu am nañu luñ solo. man de moo solu de nañu rek xar. waaye sa papa boo amul suful ak sa fayda par force na indi xar na indi yére. sa papa di indi yére. Eh, yéen a ngi wax rek yéen a wax rek. xool ko. dégg ma def la garam place laa jógee mais tey damaa sonn. yaatal nu yoo. awa ah, lagal jox ma paa ma toog waay. yow daal Ndiaye ma paa man damaa sonn. ah, ah garam place laa jógee. tal na toog. garam place rek. Ah, awa Ndiaye seetlu naa si yow lenn su ma la defal dara danga may jaay rewande mais bi su ma la ñuusee di nga bàyyi sa na rewande may jaay man sax bàyyi laa ah man damaa xam xale ndaw yi léegi ñu ñu nekk kat. tabaski ren yii toog xaar yàlla rek ndax nga tey jii ba may mën daanoon daanoon daanoon ñëw di laajte ay di jaay lii da ngeen daan ñëw fekk ma lépp ma mais ren ñëw ngeen gis dara ñëwagul léegi bu ñu tooyee xaar yàlla xanaa ma yàlla dina ñëw. gis àdduna bi lépp mosut a mën. déglu ma yow man moo tax nga judd man moo tax ma lay reer xaru si boobu ba léegi. mën moo tax ma lay solo ngay solo ba léegi mën moo tax may dem ci garan place bi dem di wuti léegi ba léegi ren nag dinaa xaar yàlla ba yàlla ko li ko dikk man man dikk xamal man du ma sa morom ba nga may woo si ah. su ma yoroon tey jii doo toog di ma laaj Mourou Ndiaye maa ngi ñëw kon moo war a wax sama xarit yi ñoom Fatou Sow ñoom ñëpp ku si nekk sa jëkkër yee war na la xaar tamit ci grande dame bu toll nii man man ma am xaar waaye ñoom ñoom ñoom seen xar yi xaaxama yow gisa tey jii dañu tabaski boo mënee nga def boo mënul sa lendemain nga dem après lendemain tabaski la. Eh, kii de béy la la indil béy. aw Ndiaye béy sax bu ma ko amee béy ba na. yàlla yàlla béy sa tool waaw que dañuy da man bu may jur lii man ay bu may ay bu may jur lii bu da ngay jur nee na nii. nii nga moo tax ma mel nii. kon nag sama la ja ku ko bañ daa fekk sa sa kër gi mënoo fay am jàmm maa ngi génn si mbedd mi nëpp xaar yàlla bu yàlla indee xar may may indi yàlla bu indiwul xar nag ngeen xam ne lii la yàlla dogal. daal demal rek noonu ko jàppal garam kalaas rek waaye yàlla yàlla bay sa tool de moom. Tëbës ki ci waaw global. ማለት ነው። ኪሴን ባባ ግርግር ነው። papa baa yaa si jàmm. maa si jàmm bu baax. yaa ngi am jàmm bu baax a baax. ça nii rek mbokki fan. man mbokki Medina Fall. ak gañe nga ma de. ah papa xàmmee woon. koñ boobu gëj naa lool du ma fa doxantu. moom lañ naan kase. xàmmee nga ma xàmmee ba léegi. ba daa xàmmee la te booy xam la gis nga jamono jii nii. Mhm. dox di insecte ay nit. loolu da ko war a baax. waaye tey lu ma la indil moo dàq doo ma déglu. booy sa baay noo ko indi leneen ndax problème àdduna bi yëpp la boole yéen booy na xam li gën a métti àdduna nga yor kër te yoroon la leen dundalee mais Fatma ma yónni si yow. mère Fatma mère Fatma mère Fatma Diop. mère Fatma Diop waaw. député. ma maire bi nga xam ne moo mën bii boor mën ti bee boor. jeex na xaw ma lu ma neex si yow. dangaa bëri fi ñu bëri feleñ am cas. leen boole si cas cas. xam nga lu ma jox ku ma wax si moom da ngay ànd cas a cas. cas a cas. ah booy waxal li la yónni booy na gaaw waaye damaa <laughs> yàqam. mais Fatma Ndiaye nee na. waaw. lu mu waxati sax. ah booy waxal waaye nga naan ma ne booy lu mu waxati waaye mère bi xam nga ne loo du la yónni bu dee ma wuy ko. ne ko paas laa yoru mais bu ma yoree paas ngoon moom fa la ñuy mbàkkee. mais Fatma Ndiaye nee na. ma jox la enveloppe bi. du ma ko laal waay booy. doo ko laal. non non du ma ko laal booy ma dem. ma jox la ma jox. waaw ah, booy du ma ko laal waay. naa la xamal ñaari baat. waaw. tabaski bi jib si na de. da yow xam nga ne ñu ngi ci semaine tabaski bi. waaw kon xam nga. dayoo booy enveloppe bii nga yor sa loxo man bëgguma ko may dimbali. waaye ni mu fekkee fenn foo xamante ne tey jii nii nee naa du ma ko laal mais booy il faut ma laal ko. gis nga jamono ji mhm. faaw ñuy dimbalante si suñu biir ñun doomu aadama yi tamit dëgg ndax dimbalante mais parce que la vie est dure liy jëm du nit xel may nit. booy gis nga moo la lenn gis nga tubaab dañuy tey jii ku ne koo xamante ne yaa ko ëppale war nga ko mën a jàppale. moo ni ngoog te bi gis naa ko mu ngi dox si social. Mhm. comme booy enveloppe bii nga yor sa moom moo ko maa ko moom jox ma ko. waaw ni nga xëy jëlee. te ku mën dox yónneen nga. xam naa après dañu gisante waat. léegi nag sa dara bi gan na nag. ah mais sa papa mën a sant rek. waaw ah, jigéen bi yow xam nga ma neex si